moytul opposition du gaaw am de xam ngeen xam ngeen lan lañu yaakaar ñoom féewale Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko loolu mooy opposition Sénégal moo tax ma ne opposition du gaaw am ndax Bassirou Diomaye Alaaji Bassirou Diomaye Serigne Goundou ak Ousmane Sonko nit bi mën dox ba féewale leen ki ko war a jur ki koy jur ak ki koy jur ki koy jur moo tax ñu war a dem noppalu bi ndax bu ñu xamoon wallaahi bu ñu xamoon bu ñu xamoon bu ñu xamoon dem defaraat seen i xalaat ñëw andi débat bi moo gën lii la ñuy nag seet leen ko bu baax ñaar wala ñett wala ñeenti catégorie moo ci am seet leen ñoom ñëpp ak seeni i presse ñu xëyee rek ne na ci Ousmane Sonko dama ne keroog président Diomaye ma ne ko yow santal yàlla ndax yow li benn président mosul am moom nga am ma danga am. fusible gars yi bu ñu xëyee rek da nga ci Sonko te fusible ba nag dafa miin a miin a miin ba dara jaaxalu loolu mooy sa kon yow demal toppatoo sa diplomatie demal toppatoo sa armée demal toppatoo sa lii ak sa lii xoolal nooy orienté mbiri te teewul nag man mi ñu jiite may chef de gouvernement dinaa gouverner de ba mu mat sëkk nag loolu mooy dagg xolu gars yi Sonkoy Diomaye Diomaye Sonko lan la ñu a dégg ba nee leen topp news bi bi rek topp bi bu ñu gisee man wax ci sax ñu ñu tataraayu ak may dox ci topp news dinaa ko doxa doxa foofu dox na ma ne bu ngeen seetloo bu ngeen seetloo bu baax ñiy wax yëpp nag ñaar ba ñetti catégorie la xam ngeen peut être première catégorie mooy ñan mooy ñi nga xam ne yaakaar nañ ni war nañoo mën a dellu si nguur gi nu mu gën a gaawee te pour ñoom pour ñu mën a dellu si nguur gi nu mu gën a gaawee fokk rek ñu fexe ba ko jóge fi comme saa ñu jàkkaarloog Bassirou Diomaye ñoom daal jàpp nañ tànk Sonko ngi frankulaay fu mu frankulaay rek du du demee noonu ñaareelu catégorie bi mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ni li ñu ñàkk ñoom mooy pouvoir bi ñu leen joxoon jox leen ko pour ñu liggéey réew mi ñoom ñu taw di ci noos di ci nguuru sa waxee ñu naan ku aaye wal sa moom xaw ma yu mel ne noonu jàpp nañ ni ñun ñoo leen yàqal seen aye moo tax en bi ñuy ñuy dund ñoom en bi jëmale ko ci ñun du fi jóge ñetteelu catégorie mooy ñoo xam ne dañoo jàpp ni am na ñu ñu bëgg ci réew mi te jàpp nañ ni bu ñu demoon ba wéet ak président Diomaye dina gaaw waaye tant que Sonko ngi fi dina xaw a jafe ñooñu nag xam ngeen fu ñu juumee wallaahi dañu xamul son excellence ay bu ñu xamoon son excellence suñu xamoon seen ex son excellence dañu xam ni man maay seen jàmm man bëri na loo xam ne son excellence yëkkati na ko fii ma ñëw ne ko monsieur le président ñaan naa la tegal rek mu ji keroog daf ma xool ba siyaag ma koromak ma ne ko mu ne ma yow dama ragal ni gars yi dañ laa atteindre mystiquement di dama ragal ni dañ laa atteindre mystiquement son excellence le président Bassirou Diomaye du ñeexum ñebe de ay suñ ko xamoon dinañu toog di ñaan bés bu bu ne yàlla fi soog ko yàgg waaye nag weesu nañu foofu fi ñu toll nii ñun dañoo fas yéene jublu ci liggéey bi tàmbali nañ ko bu yàgg sax waaye maa ngi dellu ci doog a ñëw nag ci ñaareelu pàcc bi ñaareelu pàcc bi mooy li taxoon ñu daje fii li taxoon ngeen ma fii. mooy lan la ñuy xaar ci peuple sénégalais balaa ma naan lan la ñuy xaar ci jeunesse sénégalaise peuple bi yëpp laa bëgg a waxtaanal gis ngeen politique amul lu ko gën a noble politique amul lu ko gën a noble ci yàgg naa wax ni nit mën ngaa matadi sa lépp manqué nga dem taxawul jàkkaarloo suñu borom mu seet la nga doon daj ngir sa askan mu ne na jàllo loolu man gëm naa ko julli baax na koor baax na aji màkk baax na leneen ak leneen waaye sonn ngir sa askan gëm naa ni amul lu ko gën a noom moo tax gars yi ñoom affaire politicien la ñuy def politique ñu de ñun nag dañuy politique te nit ñi dinañu xam lan mooy suñu différence ci cadre boobu yàlla jox nañu réew mi ñu ngi ciy liggéey lu mucc ayib réew kenn du ko soppi ci ñaari weer kenn du ko soppi ci juróomi weer kenn du ko soppi sax ci benn mandat waaye xam ngeen lu am solo mooy nga teg les fondamentaux yoo xam ne bis bu ne sénégalais gi ñu gis yeewoo gis nga teg jéego boo xam ne xam nañ ni ci nga jëm moo yóbbu senegal ci progrès développement ci loolu la ñu nekk. ñaar moo mën a am soit ñu def la gars yi doon def mooy bu la yàlla joxee réew soit nga nekk ci benn agenda politicien mooy déjà yaa ngi xalaat élection bi di ñëw yaa ngi xalaat élection bi di ñëw militant yi wër lépp ku nekk naan la mën a mën a jox ma ñoo fi ne woon di def lii ñoo fi dajoon lii jox ma jox ma nga topp ci loola waaye loolu weesul di juróomi at élection dina ñëw ci juróomi at yi dina am benn élection wala ñaari élection wala ñetti élection waaye foofu la yem te boo ko defee askan wi la parce que askanu Sénégal li mu sanctionné lii fi nekk lii rek la de du leneen ñaareel bi nag mooy suñu option ñun ñun xooluñu la prochaine élection ñu ngi xool la prochaine génération ñaareel bokkuñu xool la prochaine élection nga xam ne ci juróomi at la nga war cee mun am benn wala ñaari élection ñu ngi xool la prochaine génération mooy dans vingt cinq loolu mooy suñu mission ñun bés bu nekk nag mu am benn brique yu ñu teg weer wu nekk mu am ay brique yu ñu teg at mu am ay brique yu ñu teg cinq ans yu nekk mu am brique yu ñu teg loolu du mbërum président Bassirou Diomaye Faye du gërëm premier ministre Ousmane Sonko mbirum chacun et chacune des sénégalais et des sénégalaises loolu la ñuy xaar ci yéen nag mooy le portage du projet ñan ñoo war a porté projet bi ba tey jii xam ngeen lu amoon ku ñu fal nga dem tëju sa palais ànd ak sa gouvernement ngeen def seeni plan sénégalais koo laaj lan mooy PSE xamu ko yéen ñi est-ce xam ngeen lan mooy PSE lan mooy volet agriculture PSE lan mooy volet étude bi PSE lan mooy volet financement PSE xamu leen ko